waaw eh, ci gàttal rek bi bi bi maam mu mag ma Abdallah Abdourahman yi nga xam ne am naar la bi joge jógee bi mu jógee mu jógee Arabie Saoudite Mauritanie la dal ñu may ko fa soxna mu am ak soxna si juróom-benn weer faatu waaye bàyyi na soxna si eh, bàyyi am na lu soxna si bi mu juddoo Mauritanie xamuñu nu ñu koy tuddee ndax xamuñu woon cosaanul góor gi xamuñu fu mu bokk waaye xamoon nañ ne Arabie Saoudite la la jógee. moo tax dañu ne doom jëm doom jooju ba mu juddoo Xuraysin lañ ko tudde ndax xamu na ne Abdullah Abdurahman mi ko jur Xuraysin la bokkoon ci giiru Xuraysin la bokk Xuraysin nag mooy xirs buñ tuutal xirs mooy requin mooy nekk ci géej gi ku mën a xeex la man ngay xeex ak soxor gi moo tudd ko Xuraysin loolu feeñ na ci xare bi njëkk am Murtani bi bi bi bi bi Xuraysin moom màggee ba doon mag ba doon waxambaane xeex bu métti ba fa amoon buuru Murtani da koy xool ba mujj bi xeex bi jeexee mu wax ba mu ñëw mun ko yow foo bokk mun ko man sëtu Xuraysin laa mun ko noonu nga mën a mel dañoo soxor ta met ndax noonu leen tudd mooy Xuraysin a ah maam Lamine mii nag ka ko fa jur mooy Matar Sidé Sidé jur Matar Matar jur maam Lamine maam Lamine nag euh, yàlla dogal mu jóge fa ñëw fii bi mu génne Mauritanie ni ma ko waxoon léegi mook magam di ñu wax Malick Yoro Bandeñ la ñu dal bi ñu jógee Bandeñ sanc Njoosi Njoosi ab dëkkal bu sës ci Bandeñ dañ ko doon féexloo ak daw coow la moo tax ñu tudd ko Ndiosi mooy Ndios dëkk bi. bañ fa jógee nag lañ dañ door a wut si nag maam Lamine moom ak si wut ak wut doom de la ko booleel ayib Malick maam Malick maam Malick moo ak si wut damaa juum maam ayib Malick la ko booleel Malick moo doon magi maam Lamine moom foofa la faatoo boole ko doom di wax ayib Malick ñoo ànd ñëw fii sañ cekkin gi biñ ñëwee doo la maam Lamine sañ cekkin it dana ko rek mo wutal sama kii bopp maam Lamine dogal ko euh, ab kër boppam ñoom ñaar ñu seq ci fii ci cekkin gii maam lañ moomu nag euh, comme ni ma ko wax léegi mooy ki nga xam ne moom moo juddoo Mauritanie ci diggante Matar ak Sidi ñëw sañ ci dëkk bii ànd ak ànd ak ànd ak mm, Ayib Malick mi nga xam ne mooy doomi Malick Malick moo dëkk cekkin li ci gën a bari Malick moom lañ ko tuddee li ci gën a bari Malick moom lañ ko tuddee lemin yi yooyu leen moom lañ ko tuddee ñoom ñaar ñoo bokkoon ak baay waaye Malick magoon message gi nag moom maam Lamine la ko yàlla ci moom comme ni ma ko waxee léegi bi message ji am picture am pétale takkal ab téere ba mag ñi baaxoo defee mi naaw ba dal ci ak rat waaye rat ga 15 jours la fa am patax mi door a door a dal ci guy gi nga xam ne kon fii mooy ab bayaal bi war a dëkk loola a kër la woon rek waaye bi mu bëggee suuf yaatu dafa ñaan buur bi fi nekkoon ne ko dama bëgg suuf si yaatu soo mën a jaamu yàlla mun na ko taalal daay fu mu ñu moom loolaa waral ñu baree baree dëkk fii ci ci ci ci ci boor yi ci sunu suufus maam lañ dëkk kon maam Lamine mooy tëdd fii tey jii. yow foo jàpp ne fii fan la fan la fan la fii. Hmm? fii nii fu jàpp ne fii la war a toll barab bi. fii rek taatu garab gii rek fii rek mooy barab la ko feeñoo leen mooy li ma wax léegi bakki wàlla. moom bi mu sañcee fii hmm. mën nañu ne sañ mën sañ tudd cuuru daal la dem dem dëkk bu ñuy wax cuuru cuuru lu ko indi dëkk dëkk dëkk ba teelootuma ko waaye cuuru ab cuuru ab dëkk la waaye doon doon ab àll woon ay garab yi suuróor ñoo fa nekkoon li indi cuuru mooy daa jaar ci dëkk bi dem jàll ci àll ba dembalamin doom ja di ko topp ba fekk mag ñi toog ni mag ñi daan baaxoo def ci ay gong yi ba toog noonu di waxtaan ñu ne leen ak góor jaaru fee gu mel nangam ak nangam ñu ko ah kay mi ngi dugg ci suuruur boobu boobu fekk na Cekkeen am trent ans maa Lamine dem dëkk boobu ñuy wax foofu ñuy wax suuruur am fu lu mat ñaari at bay na fa am mbay moo xam ne bu ñu ko bu ñu ko nettalee ku dana dana dana ci am sikki sàkk ndax mel na moom fa nekkoon te benn fa ñaari sàq dugub ak gerte te ci genn Dakar la doon toog genn sasalaam la fa yoroon kenn xamul fu mu daan lekk bi fa jógee nag. la def ay ay ay ay ay lu mel ne ay meññet ci ci diggante cuurur ak cekkin ngir bu fa yebalee doom mu xam ko bi mu ñëwee la yebal Demba Lamine mi ab taawam bu góor mi nga xam ne moom Dumbe Seck mu jur ma taatu ba ñu bokk ndey ak baay ko demal sanc gannaaw bi cekkin amee fanweeri at lañ sanc cuurur waaye jëm bopp moom bu ñuy wax moom mën na ne dëkk boobu la dem moom moom gannaaw cekkin ngir sanc ko. ñi nga xam ne mën nañoo wax ne ci askanu cekkin lañ bokk ci Sénégal ñun ñu ci xam. Mhm. doon ay kër diine waaw bari na boo xoolee maam Maaram Mbakke euh, Farimata Seck la jëkk a denc jigéen maam Maaram am ca Abdou Farimata Ceerno Farimata ak Ahmadou Farimata. Farimata boo ko jur. Hmm? Farimata boo ko jur. Farimata Lamine Seck ay baayam Lamine ñu tudd fi mooy bàyyi Farimata Seck. Amadou Fatoumata ñoo ñoo ñoo meññ tijaan yëpp Abdou Fatoumata ñoo mooñ ñoo mooñ sëriñ murid yëpp. Abdou Fatoumata Abdou Fatoumata. ak ak Ahmad Fatoumata ak Thierno la jëkk takk fii la fii la ko jëlee. bu bu loolu jàllee boo demee ci njóobeen yi euh, ku mën si Massane Ndoumbe moom kenn waxalu ko Massane Ndoumbe Ndoumbe Seck yaayam boo demee boo demee buy sekkee seen koo ko sanc buy sekkee yaayam boo demee Njóobeen koo ko sanc kumba sekkee yaayam loolu mu mun a booleeg waa ko sëñ Daaru bari na ci dëkk yoo xam ne kilifa yoo xam ne fan dëkk ci ci maanaam ay sëriñ wala ay ay seex ñu ci gën a bari seen maam ci lemen yor mii la soqi ko mën naa gudd lool sëñ Mor Bousso Dieng euh, suñu jarbaat la man jarbaat la ci man sëñ Modou Bousso bi jàng ci boppam moo ma ko xamalal boppam maa ko nuyu mu ne ma noo sant ma ne ko Seck mu ne ma kuy sa baay ma ne ko Baara Seck mu ma Baara Anta Demba ma ne ko Baara Ndumbe mu ne ma xam na Baara man sax dama ne ko Baara Baara Anta Demba sama doom bàjjan la mu ne ma xanaa kon Baara Ndumbe sa baay te bi ma ko daa fekk mu sóonu ma ne ko waaw mu daal di jóg diglu barke Seydina Muhammad du ma ko dóoral def nii baaraam yi dama xanaa xamoo ne Baara Seck Omar Seck Youssou Seck Ibra Seck soxna benn xamuñ ñoo ñoo bokk baay en tout cas suñ ko woon. mënu ma kër gi sa dee fi ñëw te soxna benn yaay eh, maam soxna benn Seck moo jur bu sa jëng mu jur ko soxna benn ak sama baay ñoo bokk loolu moom ko xamal ci boppam waaw. Bayla suñu jëkkën Bayla ñu bari xam nañ ko te suñu mu doon dox bokk gi bëggul ak mbàkk mbàkk yi nga xam ne wala yeneen sëriñ yi nga xam ne seen mbokkum mbokkum mbokkum murut mbàkke dafa am nu le def. sëñ Moro mbokk mu bokkal askan da koo fonkoon dafa am benn bis mu jóge Tuubaa jëm Taayif rom bay laa suñ cekkan bay laa am am tudd bi mu taxee ci bi laaj ñu ko suñ cekkan day am tuddu mu a ah man du ma wàcc te fekku ma fii ak junni sama nijaay lu tax muy ngeen bañ ma ko wax sëñ Modou noonu lañ bokkee sëñ Modou noonu noonu lañu bokkee boo demee ci Maamor Anta Sali noonu lañu bokkee Anta Sali kan cekkan gii la jóge boo ko tapee ndumbe daaru mooy topp ba ba indil ci Lamine maa war a sali ci boppam sëñ Modou Moussa loolu moo ñu boole waaw sëñ Modou Moussa loolu mu boole boo doo jaaree boo tur yaa ba xarit maam yaayam ci Farimata Seck nga ko daaneel mu ñëw tëli ma Seck mi damay faral di wax ne dañuy faral di wax ne Touba ku fi wooteeg màggal te lenn cekken bokk ci boo boo toggee ñaari kilo mu des du jeex mënul ne wax naa ko ci kanam suñu Cheikh suñu Cheikh Ndiaye chef de village Darou Khoudoss ma ne ko yaakaar naa bu ñu doon génne Sénégal ci koo xam ne dara laaloo ko ci tekkin du bari mu ne ma doo ko gis. li ko waral mooy day dëkk bu yàgg day dëkk bu yàgg am réew mu toll ni bu ne laa dëkk bi kenn mu ko fi bu la xam ne yàgg na. am réew bu ab dëkk bu ñu demee ba naan la am na ñeenti seek euh, juróom juróom-ñetti seekal juróom-ñetti téeméer tegal boobu dëkk yaatu na mën nga cee bokk doo xam ne bokk nga ci waaye bu ñu ko seet ba topp ko mënoo cee ñàkk bokk ndax yàggee tax kon daal ci gàttal bari na kilifa yoo xam ne seeni maam ci sëriñ bi fii ci seex ko buñ ko xamee ak buñ ko xamul. barab bi dama doon ñaan ci barke Serigne Touba rek barke yonent bi bu ëllëgee mu déwénee bu ñu ñëwaatee ñu bañ ko fekk mel nii donte la sax. ab mur lañ def rek bu bu jóg ñetti ñetti birig ñu xam ne fii lañ xam ne fii moom xam la gu mat buñ demee nag ba man leneen def ko ndax bari na ku ñuy defal lu lu rëy te kii yelloo na ko kii yelloo na ko kii yelloo na ko ndax ku ba ku sama borom barke la ngi nii ku sama borom barke la ngi nii toog ci kanam sëñ bu xaadir benn nuyu ko mu ne ko noo noo sant sekk ko ah déedéet mu ne ko wut wut na ci wut ab xarit mbaa soxna Sëriñ Tuubaa daana wax ne ku son sekk de lu ne ma na koo joxe ba mu des baax ñoom xam nañ kan moom maam lañ moom xam nañ kon nag li mu mujj rek mooy ñun linu nu war li ko waxoon léegi saa maam baax na baax na loolu de waaye jéem fa mu jaaroon bañ ne ko baax na bokk na ci am na ci solo am ci solo daan sàmbaram dimbali ba uh, buñ dajee moom ëllëg yomal xiyaam duñ am kersa. Mor Madické am waaw Mor Madické moom it ci sëti maam Lamine la bokk xanaa ñaarul sët la bi Sëñ daa dem jébbalu ji waaye ay bokkam bi ñëwee dañ ko doon xas lu tax ngay jébbalu ku ku Lamine Seck sa maam ak xam-xam bi nga am ragal yàlla bi am yàlla. ragal yàlla est ce que am na kenn koo xam ne war ngaa sukk kanam di jébbalu mu ne leen daal man daal li ma def naa ko ba noppi te am na fu mu ko teg. Hmm. la waral loola it mooy màggaayu kilifa gi dafa ne ne kenn mënu koo tiim. dafa ne kenn mënu koo tiim ci diggam ak suñu borom ragal yàlla ak jaamu ko loolaa waraloon ba ab sëtam demee jébbalu ci jamono yooya ñu ñu xawoon koo beddi ñu xawoon koo beddi waaye tëriwul nag yàlla mooy maye te ku ko neex lay. may lu ko ëpp Serigne Touba dëru kenn xam waaye ay ponkal la fi fekk Serigne Touba kenn xamut waaye ay ponkal la fi fekk waaw kii fii nag ñooñu la bokkoon defaat ñaan rek ak lu wallaahu ahad yoon ak benn yéene yool bi ñëpp ñi nga xam ne dawlu nañ ci barsaqal Muhammad yi